En Mauritanie également, quand on a des fêtes, quand on a des baptêmes, des grands mariages, des grandes cérémonies, eh ce sont les mêmes danses. on a un petit peu les mêmes cultures, les mêmes traditions, et on va les retrouver. Mesdames, je sais que vous savez danser. Je sais que vous savez accompagner Salam Diallo dans ses œuvres. Il vous reste plus qu'à le démontrer sur scène. Salam Diallo va vous faire danser. Allez-y, applaudissez-le. Merci mon pas le mais la danse bu lañ def seen xel donc ceebu jën moom lañ leen di tëggal wan leen nan lañ koy feccee ndax nag naar yi ñu ngi ñëw Haalpulaar yi suñu mbokk yi ñu ngi ñëw waaye tamit ñun comme que ñooy waa Sénégal s'il lekk neex na mais tàccu leen ma tëggkat yi s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît tàggul mbaar boo tàggoo mbaar ñu dugg ceebu jën bisimilah. xoola doo dee na loxo yi daje tàccu lii na loxo daje xanaa ay tubaab ngeen lii lan la mooy jéem képp sa caam tëgg dawul mbaar di polo polo ko tontoo ay na loxo yi daje doxal ñu ceebu jën mbata sa zaxin gis gis gis ay gis gis eh, Kees Kees. Saltine ak Saltine. ayca. laay lay la la. cey nanta cey nanta waaw waaw waaw waaw nga mi si waaw waaw ay xanaa da ngay karaate mujj ayca ayca ayca bon léegi na ñëw na ñëw na ñëw na ñëw dégg naa la fii wàccal vas-y sëb dégg naa la fii zës yow sama kanam waa te yi bi di la xool may xool yéen ñu pay ca ay ay tay ca eh eh, eh dem leen yéen ñëpp demandoo leen ay ca demandoo leen ay ca Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Merci beaucoup. ça montre que doo leen ñu fi toog ñëpp doo seen morom loolu moom yàlla ko def nit day bëgg cosaanam li nga def billaahi kii mënu ko li nga def Valérie mi mënu ko li nga def Delphine Bathily mënu ko nit day xam cosaanam waa Aziz looy nuru malaaka ni <laughs> waaye yéen Aziz bi <laughs> et eh, tàccu la Aziz waay et eh, waa Aziz li drapeau yomul xiyaam sax mu ngi ci donc lii mooy ceebu jën Penda mbay keps xam ne lii for na de acca ceebu jëndu ay foo Ndeye Marie ceebu jëndu ay foo maintenant maam fa ñu def Baara mbay Baara mbay bi nag foofu ngeen di taxaw Valérie yow xoola wuy ma portugais nga ak tubaab ak Grèce <laughs> ak Athènes wuy ma kan ñibbi oh d' accord léegi booy tuuti jazz un peu de jazz pour madame Diouf madame Diouf voilà voilà voilà lii daal mbasa mbasa bàyyi leen loolu waay ki tamit dama na ci bataaxin bëxëta bëxëta ñu bëxëta ñu bëxëta bëxëta bëxëta soirée sénégalaise ñoo moom mbëg mbëg la si sa maam sëriñ sama maam Sidi Hadj Malick nga yaakaar Sidi Hadj Malick bàyyi sëñ Babacar coppati sama naar yàlla sama naar faram seen sambay naar si ndox si ceeb si àjjana si ak say waaw yow kii kan la Ndeye Gueye la Ndeye la Ndeye la toogal xaar ma Ndeye Gueye Ndeye Gueye la doomu Louis Gueye la doomu Louis Gueye la Alaaji Baara Ndeye Gueye la lay la wës ay waay laay lay la laa ñu bëggata ñu bëggata loolu neex na ndéy géey ndéy géey doomu li liggéey la ndéy géey doomu Lewi Gueye la eh, eh, eh, boy boy boy boy ci kaw ci ci kaw ayca deux S la deux la ey li neex na salaam ku la yar bàyyi leen ma ma joué salaam ku la yar ne me déconcentre pas bàyyi leen ma ma joué salaam ku la yar wax ma ku la yar ku la yar ku la yas ku la yar wax ma ku la yar ajalla dëggan samba wax ma ku la yar aji nda ñanko ma sa neex ma samba jeey demba daar daaw nga jor nga mo ndelu ko bon amon nga mbinti jay kendu càmma samba demba leer xam nga ku yar ajul ndey ñang yar yaayu ndey maare yaayu nguna jaay jaay yaayu ndey soxna xam nga ku yar ndey gey danga naan wuran tan kakaj jigin jigi gin kakaj wuran gey san kakaj jigin jigi ñu dem taat mu tas gi du ru ru ru bax giis rot ci giis ru da da gi sa git git ru da da gi da ma càkkit gi da bax bax gi taas wër gi taas wër gi taat taat gi taas taat gin ma ca dul da sa dat ru sa gi daaxin yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole ndey gi yoole yoole yoole yoole léegi yoole yoole ano Delphine chéri Babacar yaayu Melissa yaayu Melissa yaayu basketteur dootuma ko fab mënatuma ko fab yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole yoole doxal ah sabala ba sa runda oho saa si ko dund oh. sëggugu sëggun na ak sëggugun na ak sëggugun na ak sëggugun na ak sëggugun ak sëggugun na ak sëggugun gis ku tàpp pacaca gis gis gis gis sëro sëf gisal applaudissez s'il vous plaît léegi kontaan naa ci sa teewaay trop ndax yow da di sunu doom di sunu rakk baax lool bëgg aar nga xewle nag su mag boo xam ni ñëpp a ngi koy pare yàlla na nga yeggale jàmm ci barke ji Baara sa sëriñ lii nag mooy cosaanu senegaal Sénégal pareegunu dañuy nuyoo rek ndax sunu mbokk naari ñu ngi fi sunu mbokk halpulaar yaa ngi fi kon ñu jox la nga ñam rek ñu daal di delluwaat bu ci kanamee ñu ñëwaat waxal waaye ma sëkkatal ko wax ko lu baax duma tàyyi benn yoon Thank you. tamit bés bu ndaw yaram ndax ñiy défilé léegi li nu def hommage la kon duñu sori damay woo sama soppe sama rakk ju mbax jëlee Abdoul Aziz Fosen dañu lay ñaan nga dugg si ñu ñaanee na ngeen tàcc ko bu baax a baax xale am jom mooy dugg si Fosen ci yar ak tegginam baax lool am jom bari ngor ñëwal am grand-mère ey mbay Abdoul Aziz Fassel Nabil la ilaha illallah mbooloo mi tukuloo dama ko yéene jaw naa ni ñu mu wund mu ne tuuti na lool waaye xiif xiif ko de taxtawaat leen ko bu baax a baax nag balaa ñoo tàmbali dara ñu def une minute de silence tag leen ko nag sunu maam ju baax di waral hommage bii di Adja Penda Guissé ñu ñaan ne ñëpp jóg taxaw bisimilah Penda Kassé waaw teg leen fourchette yi ak kuddu yi na ñëpp jóg taxaw ñu ngi defal hommage jigéen ju yiw te baax. sa yaram war a daw loolu gisee tey sa ndey ji moo waral lii jërëjëf macha allah wax ne nag ñoo ngi tàmbali manifestation tubaarkàlla mooy tàngal major bu mag ñan ñoo xamee xanaa ajatu lay jóg ku ba joor ak ajatu la la déggeen sàmm saa neex nag mooy maamam dégg naa prestation fierté sa wàccuwaay seex di ndokkeel tamit bu baax a baax Aziz mii taxaw dafa ñoo xam ne ñi leen daal am na solo fexe na daal ba ñaari chef d'état ku ci nekk jox la ko ci Abdoul Aziz mi jiite Mauritanie jox na daal gor su ndox xale bu xale bu xale bu yaru bii jox na ko ci la ak kan président de la République président Macky mi nga xam ne tey nag moo yor réew mi fexe na tamit ba ñaari grande dame yi nga xam ne tubaarkàlla ñooy première dame réew yi ñoom itamit jox nañu ko ci la waaye Aziz tuuti nga de waaye def nga jom de lii. ku jubawul ak say bokk mënuloo Aziz nee na mi ngi gërëm nag bu baax ndax dafa am kenn koo xam ne dafa def déplacement bu rëy déplacement bii mu def rëy na kooku mooy kan mooy sunu xarit sunu soppe sunu doom ju baax jii ji biran yaru am jom fonk ay baayam nangoo liggéey ba àddina yëpp xam ko waaye ñu dénk ko loo xam ne lii de mi ngi ci tarba kanam foo ko doon ne yaa ngi ko doon ne nag ci góor su suñu naan gisul woon Abdou Kouma mi ci Fuuta Gañ Sire Buubu mi ci Gàmbi Aldemba mi ci Ñooro Ablaye Daaro Mbaar nag bu baax ki nga xam ne moo jàppale lool Aziz kenn mësu koo gis fenn kooku mooy kan eh waaye gars yi tàccu leen Karina nag bu baax a baax. Karina Abdoul Aziz ne mi lay gërëm bu baax a baax ci yow tamit ci bu baax lii nga ko defal xam ne ne yow doo dem ci benn place waaye tubaarkàlla bi mu ak bu mu jógee ba léegi nga ànd ak moom Abdoul Aziz Dara doon xale du tee am jom. képp si maa ngi laa nuyu eh, képp si maa ngi laa delloo bu baax a baax sa càmm bi ñu ngi la <laughs> ak ëmb Aziz nee na nag nijaayam bu baax bi te nijaay mooy yaay sa nijaay tey honoré nga sa sa ju baax ji honoré sa ndey waaye sa sa tamit xam naa ni kontaan ndax lii tey dal ci dënnam caaxaan dundiwu rongoñ dafa cher lool waaye maam joo xam ne jële fekk na sa première édition maam joo xam ne fekk na sa deuxième édition yar na ci ngor yar la ci jom yar na ci fayda nga xam li mu la bàyyee fekkee wul troisième bi nga def ko mu mel nii ay waay tàcc na asis bu baax la di wax ne kàddu yooyu rek la ci seen soppe El Hadj Amadou Mbaye Gar doon wax di ndokkelaat public bi yépp di wax ne sama doom Birane Amadou Mbaye Gar mi de bég naa ci yow bi ma tàggoog yow matul ñaari fan damaa diri saaku ceeb fay boy amal suma kenn bor te xam ne fu ma sa bàyyi teg fi ma teg fi nga ma teg Amadou Mbaye Gar je ne parle pas n'importe où je ne parle avec n'importe qui mais je sais bien à qui je m'adresse. Nadir tàccuwaat leen ko waay mbooloo mi bu baax a baax Géwal amul grand-mère amul koo si geso Nadir macha allah Géwal moo njabar rek soirée. Je vous rappelle que c'est la deuxième édition et qu'il y a des changements. Il y a évidemment, on a beaucoup, euh, on a beaucoup apporté de nouveautés. Vous allez les découvrir pendant toute cette soirée. Et moi, je vais en profiter pour euh, remercier toutes ces personnes qui, en plus des hautes autorités, se sont jointes euh, pour qu'ensemble, elles puissent donc faire une union sacrée autour de ce jeune garçon qui n'a comme souci que mettre en valeur la richesse culturelle de ces deux pays. C'est vrai, il dit la mais le Sénégal est fortement concerné puisque nous nous sommes, ici à Dakar et qu'ensemble, nous partageons beaucoup de cultures, de langues et de traditions, avec évidemment les chants, les danses, l'habillement, et vous allez vous en apercevoir dans un petit instant. J'aimerais que l'on remercie euh, un monsieur qui a énormément œuvré pour euh, la réussite de cette belle soirée, monsieur Ahmed Amar de NMA, On va J'aimerais également qu'on remercie M. Malik Diop du MEDES, qu'on va applaudir également, très fort, s'il vous plaît. La grande dame qui a accompagné Ziz Fashion pendant toute euh, cette période, ils ont énormément travaillé pour nous offrir cette superbe soirée. Madame euh, Queen Karina, est-ce qu'elle peut se lever qu'on l'applaudisse très fort Elle a fait un travail remarquable. Elle est cachée quelque part. Ah là voilà. Et en plus, elle est superbement habillée. Félicitations pour tout le travail que vous avez accompli. Merci de mettre en valeur notre richesse culturelle et bravo, pour tout ce que vous faites. J'aimerais bien savoir qui vous a C'est Ziz Fashion qui t'a habillé. Bravo donc qui vous a madame. on va l'applaudir très fort et on va continuer avec euh, le groupier là qui va venir vous entretenir. avec la musique bien de chez nous, aussi bien de la Mauritanie que du Sénégal. Chez les Poulards, on partage les ethnies. On va donc euh, les applaudir très fort. Le groupe Yela qui va venir tout de suite. Et juste après, nous allons recevoir la prochaine collection qui, cette fois, sera une couleur, enfin une collection qui sera en couleur, avec plusieurs couleurs, plusieurs coloris. Il aura donc beaucoup de diversité et euh, beaucoup d'animation. diversité culturelle, richesse, couleurs, traditions, tout cela pour vous accompagner pendant cette deuxième édition Le groupe qui qui va s'installer, et nos mannequins qui se préparent pour... Euh, la collection numéro Je vous rappelle qu'on a 5 ce soir, 5 collections qui seront chacune suivies d'un groupe de musique pour une soirée riche en couleurs. Et on va en avoir. continuer, quelques, pour continuer les remerciements. Avec des remerciements tout particuliers à tous nos amis des médias, grâce à qui ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là pourront profiter Avec des remerciements particuliers à Sadio Batili du Mali. Merci Sadio Batili pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait pour la réussite de cette euh, belle soirée. Et monsieur, remerciements également à monsieur Ismaïla Kamara de la Côte d'Ivoire. Ismaël Kamara, et M. Adam Ndiaye qui est également présent, un ami, un frère de M. Birandour, jeune garçon très actif pour euh, faire participer toute la jeunesse à tout ce qui se passe dans le monde actuel. Et Dieu sait si ça bouge. Madame Oriba de la Guinée-Conakry. Monsieur Monsieur Ouriba, Guinée-Conakry, que l'on va remercier. Le groupe est là, si vous applaudissez. également à sa maman, Yaïsira Guissé. Si elle est là, on va l'applaudir très fort, mesdames, messieurs. Et on va continuer donc euh, nos dédicaces avec, euh, enfin dédicaces plutôt, des remerciements à toutes ces personnes qui œuvrent et qui nous permettent de réaliser cette belle soirée. On va continuer avec euh, le groupe qui va vous accompagner et je vais vous laisser le découvrir. Moi, je vais vous retrouver à la prochaine collection. Ce sera la troisième. C'est une surprise, je ne vais pas vous révéler tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va vous émerveiller tout autant que celle que vous venez de voir. Merci d'être parmi nous. Bon appétit si vous êtes euh, encore à table. Bonne fin de repas pour ceux qui sont au dessert. Et euh, voilà, prenez de l'énergie. Vous allez en avoir besoin pour applaudir toutes les personnes qui participent à ce beau spectacle, aussi bien les mannequins que les stylistes, que toutes les personnes qui ont permis de réaliser tout cela. Merci à vous, merci à la presse également. Ils sont là, ils immortalisent les images. Vous n'êtes pas les seuls à pouvoir en bénéficier. Vous allez les revoir, ce sera toujours un plaisir. Mais pour ceux qui n'ont pas le bonheur d'être avec nous, ils sont peut-être loin, ils sont aux États-Unis, en France, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Mali, eh tout autant Et à tout de suite pour le groupe qui va venir et qui va vous faire danser, bouger et applaudir. Voilà, et puis nous avons donc, avant de commencer, remercier trois dames, trois dames qui sont très actives dans tous les domaines d'ailleurs, parce que à chaque fois qu'il y a une possibilité, d'aider une personne à faire quelque chose d'important, d'intéressant. Elles proposent toujours leur service parce qu'elles ont, elles ont une grande âme, une grande générosité, un grand cœur. J'aimerais qu'on applaudisse Madame Valérie Diouf, s'il vous plaît, qui est avec nous. Madame Amisek également. Madame euh, Diop Delphine, née Batili. Et toutes les dames qui sont avec elle. Merci encore pour tout ce que vous faites. Et on va continuer avec le groupe qui va venir vous rejoindre. nga daa xalifa xalifa rexe nga ndaa xalifa timbakando tinkenando sahilindo bambaxunga wosira an nan kilun toxa ñimme wosira ndaa xalifa baba wege ndaa xalifa baba wege nga wosira an nan kilun toxa ñimme wosira ndinda namun cokundi jaar horon dangan wo sira nda namun cokundi taga dimmani dangan wo sira kebe gara fano mala agara fillani do sikkani mala wo sira yalla lagan danka mala ngati ambay telle tunganga wo sira fo foy tunganga wo sira annaan kiilun toxan ñimme wo sira na xalifa baaba woge baaba woge ga fange ŋure wo sira annaan kiilun toxan ñimme wo sira annaan kiinani korosi wo annaan mbayini korosi wo sira ngati kebe gara agara fillanin ɗo sikkani malawo sira yallallagan danka malawo ndinna namun cohundi jaru horo dangani wo nda namun cohundi taga dimmani dangani wo sira nda nalla tiga wo sira anna allah mama wo sira fofo ituganga wo sira anna du korosi sappe ñagano on ɗo ji ñagano ngo wosira ndinda namu jogundi jar horo dangane wosira keɓe gaɗa fanon mala agara fillaɗin ɗo sikkanin mala wo yallalla gandan ka mala tusinde tusi jolaya mario kudama ñokitade sa seburu annan kilun tokan nyugon o annan kilun tokan kalluni o sira kebe kada fono mala gara fillani do sikkani mala o sira yalla la gandan ka mala le tunganga fofo tunganga osra Merci beaucoup. de les applaudir très fort, Merci beaucoup. Alors, il n'est pas rare en Mauritanie de voir une personne parler cinq langues différentes, dont le salakholé, le poulard, l'arabe, le hassania, le français, le wolof. C'est dire si la diversité culturelle est déjà installée à la base et permet donc de traverser toutes les ethnies avec euh, les couleurs, avec euh, les habits, avec les danses, avec les chants. Et on en a eu un aperçu avec euh, ce, ce, groupe Sarahole que je vais vous demander d'applaudir encore une fois. Très fort, s'il vous plaît. DJ Musique, on va donc euh, vous présenter la prochaine collection. Ce sera la troisième à venir. Merci DJ. Alors, j'aimerais qu'on qu applaudisse très fort des stylistes qui sont installés en Mauritanie et qui euh, très souvent font la navette entre Dakar et, et Nouakchott pour plusieurs raisons. Pour les échanges culturels, bien sûr, mais aussi pour retrouver de la famille parce que chaque famille mauritanienne a une partie de sa famille installée au Sénégal et euh, le, le, contraire est également euh, vrai puisque nous avons beaucoup de familles du Sénégal qui en Mauritanie, avec euh, comme point d'orgue Saint-Louis, Rosso, Bogué. Et puis euh, euh, nous, avons donc de l'autre côté des stylistes qui viennent très souvent pour s'inspirer, parce qu'on a beaucoup d'artistes ici au Sénégal et beaucoup d'artistes en Mauritanie. Les échanges sont extraordinaires. J'aimerais qu'on applaudisse très fort une jeune fille, parce qu'elle est installée à Nouakchott. C'est pas toujours évident de trouver tous les éléments pour euh, réussir ce qui une jeune fille extraordinaire, qui met en valeur la beauté et la richesse de ce qu'elle a chez elle en Mauritanie. Elle s'appelle Aziza. C'est pour ça qu'elle a appelé sa boutique Les Caprices de Aziza. Elle est là. Où est-ce qu'elle est, Aziza Elle est là avec nous. Bravo pour le travail extraordinaire. comme toutes les personnes qui n'ont pas tout ce qu'il faut entre les mains, il faut beaucoup voyager, il faut aller dans d'autres pays chercher des éléments, des, perles, des tissus, euh, des sources pour diversifier un petit peu, eh bien vous faites ce beau travail. Bravo, félicitations Aziza. Nous avons également les sœurs Diallo qui sont avec nous, qui participent euh, beaucoup à la réussite de cette soirée. C'est le groupe Keifa avec euh, Khadi, Yandou et Fatimatou. Voilà, ce sont donc euh, des jeunes stylistes, elles aussi. Elles ont commencé comme mannequins, c'était ici au Sénégal, et puis elles ont continué sur la même lignée pour devenir de très grande styliste qui évolue un petit peu partout dans le monde. Merci d'accueillir notre prochaine collection. Elle va vous émerveiller elle aussi. C'est très très traditionnel et on va aller, plonger dans le pays maure. Et regardez bien, ce sont des voiles, ce sont des tissus euh, très légers, transparents, très beaux, très colorés. Je vous laisse apprécier. Merci de les applaudir. Et bravo Aziz Fashion. extraordinaire, vraiment. Ce soir, on voyage, dans la Grande Mauritanie. Vous savez que la Mauritanie, c'est un pays immense. C'est deux fois la France. Et c'est chaque région, on une, diversité culturelle, des différences. Regardez bien, tout à l'heure, vous avez vu des tenues plutôt bazin. Ça, s'appelle, venez madame, هذا اسمه هذا شنقال هذا ينقال D'accord Ce sont des tissus très fins. J'ai pas le droit de toucher. Hein. Ce sont des tissus très fins. Et là, par contre, les bijoux et tout ça, les parures, c'est plutôt pour la femme qui se marie. Donc on lui beaucoup de parures comme ça. Sinon, ce sont des voiles très sobres qui sont adaptés au climat en Mauritanie, où il fait particulièrement chaud dans les moments. Euh, en été, par exemple, où il fait très chaud. C'est un petit peu le même climat qu'au Sénégal, mais Et ce sont des voiles en plusieurs couleurs qui mettent beaucoup de gaieté. Les hommes, par contre, c'est beaucoup de sobriété, soit du bleu, soit du blanc. Lorsque les couleurs changent, on change. Euh, dans le... S'il vous plaît, monsieur, monsieur, je vous ai gardé là, le, monsieur en boubou. Un ça s'appelle comment هذه اسمها هذه قالت الضراعة هذه الضراعة الضراعة أصلا بيضة ولا خضراء soit c'est blanc soit c'est bleu Quand on change de couleur, on va dans les ethnies, Poulard, euh, euh Wolof et tout ça. Mais chez les euh, Mauritaniens, les, chez les, euh, qu'on appelle ça, les Smassites, les tout ça, c'est plutôt blanc et bleu, même les jours du mariage. Et par contre, la couture, la couture en général se fait avec la main. Et c'est là que le boubou prend, sa, prend de sa valeur par rapport au bazin et par rapport à la couture. qui se fait avec la main. Lorsque la couture se fait avec la machine, le boubou perd de sa valeur marchande. Merci beaucoup, on vous applaudit très fort. Merci. Donc si vous voulez venir vous marier en Mauritanie, vous êtes les bienvenus. Ce sont des cérémonies extraordinaires où il y a beaucoup de festivités. Allah. Allah. Allah. Et on va continuer. Salam alaikum wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu yéen yëpp di leen sant di leen gërëm ku nekk santam ak turam Hamad yaane keren Merci. هذا هذا زين الى الى نشوف ذا الكابوس لا شوف ويلي يخليك Est-ce qu'on peut applaudir très fort S'il vous plaît. Ça c'est la danse traditionnelle surtout lors des mariages, des grandes cérémonies. قلت لك. Alors ça ça s'appelle الكابوس. والله المدفع. المدفع المدفع ذاك ذاك صغير. الكابوس ذا الكبير. هذا ياك ما فيه تعمار. Voilà. J'ai demandé s'il y avait des balles à l'intérieur. Évidemment, non, mesdames, messieurs. N'ayez crainte. Je peux même le braquer sur vous. N'ayez pas peur, madame. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut les applaudir très fort, s'il vous plaît C'est extraordinaire. Ce sont des danses que vous trouvez. C'est une très, ancienne danse. Allez, c'est le blade, moi. Le blade, ça s'appelle le blade. Voilà. Ça se danse beaucoup avec les mains, avec la grâce. Et j'aimerais أسداز beaucoup. Vous voyez donc cette richesse culturelle que l'on partage, c'est extraordinaire. Pour ceux qui sont jamais allés en Mauritanie, pour ceux qui n'ont jamais assisté à un mariage, sachez que l'ambiance est formidable et qu'on a beaucoup, de danses qui s'apparentent beaucoup à certaines danses qui se trouvent dans certaines parties du Sénégal. Mesdames, Messieurs, on va recevoir une grande diva de la chanson mauritanienne. Je vais lui faire appel, elle s'appelle Noura. Noura qui va venir donc euh, me rejoindre. Noura Mtseimani, c'est la diva mauritanienne que je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Noura Noura Voilà, je vais amener donc Laura avec moi, jusque-là, pour que tout le monde puisse en profiter. C'est une voix d'or, elle euh, chante admirablement bien, elle est dans la pure tradition mauritanienne, avec des voix extraordinaires qui portent jusque très très loin. Vous savez que ce sont des immenses déserts. Et la voix peut aller jusqu'au village voisin qui se trouve à quelques centaines de kilomètres à côté. Mashallah, tabarakallah alayk. صوت حلو. Merci. Salam alaikum راني مهن عزيز فشي على هذا العرض الرائع اللي قدم لنا الليلة هذه الثياب الملابس الرائعة على أشكالها وأنواعها تراثنا كامل عرضوا الليلة بصفة زينة وزينة عندنا جو فريس بكو عزيز فاشي فرصة بل سواري سسوار فرصة زابي كي تري تري بل تري جولي صفقوا كاملين Merci. On va commencer avec Ardine. L'ardi, c'est un euh, instrument traditionnel chez nous, le Mour, en Mauritanie. C'est pour les femmes, les femmes qui jouent ça seulement.